la ko charia teg te yonent bi alayhi salaatu salaam faratal ko ci jullit yépp jullit bu ko man mooy mu koor ñu naan ko zakatul fitri eh, ñi naan ko sadaqatul fitri eh, waaye ak nuñ ko mën a tudde rek mooy war-war bu rasulullahi teg jullit ñi ni leen bu ñu wooree bay waaj a woori nañ ko génne jox ko néew ju doole yi ngir li lislaam bëgg mooy ñu bañ a talal seeni wattu bañ a wër ci kër yi di laaj ndax bisu feet da islam daa bëgg ñëpp yëpp yëg yëg feet gi xëy na nag ñenn ci borom xam-xam yi jiite woon daan nañu wax ne mel ni imaamu Malik ak ñu demee noonu daan nañu wax ne li ëpp la ñuy dundee ca réew mooma te ku ne xam ne réew mi li ci ëpp la ñuy dundee mooy ceeb waaye ak yeneen borom xam-xam yoo xam ne dañoo bokk ci ngirum Malik di ay borom xam-xam ko ku mel ni Mouhamed Arabi Qarawi ci. xulaasatul fiqhi ala saadatil malikiya wax na ci lu am solo dafa nii la ëpp la ñu dundee ca réew ma euh, woonoon na waaye daanaka woon ni na léegi li mu wax mooy la ëpp la ñuy dundee ci bis ba ndax la ëpp la ñuy dundee ci réew mooy ab ceeb mais ëpp la ëpp ñuy dundee ca bis ba nag mooy ku ne xam ni fii ci bu dee ci feet lépp la ñuy dundee mooy dañuy soppi cin maanaam moo xam ndaw lu xar la wala gu nag la wala gu ganaar kon ñu bëgg euh, li gën mooy jullit bu koy génnee. mu génne ko ay koppar ngir loolu moo mën a jënd ndawal boo bu mënta joxe ndawal ndax euh, am na ci loo xam ne bokkul ci jàppalante mooy nga ni fa set sam xar jox sa dëkkandoo ay kiloy ceeb ah, yaakaar naa ne njabootam mën nañoo si wala moom mu ñëw tàllal la wattu kon zakatul fitri daal dafa islam dafa bëgg ñi nga xamante ni ñoo jullit ñi dund bis bi bi dund feet gi te feet nag bokk na ci mooy nga soppi cin kon képp ko jox ceeb soppilu cinam ndax naka jekk mu daan togg kon moo tax ñu bëgg ñu génne ko ndawal ci li Mouhamed Arabi xale yu wax ndawal nag ku ne xam ne ay koppar la jar xaalis nga génne ko xaalis loolu nag ñu ko xayma nga xam ne ñu ñu war nañ koo génne ci ñeenti mudd maanaam ci maanaam ci ñeenti saa maanaam liñ naan xeeti pot la boo xamante ni boo boo ko boo ko nattee ñeenti yoon muy benn bopp. Euh, ñu xayma ko ci ñu am na ñoo xam ne nañu un kilo huit cent lay toll ñu am ñoo xam ne deux kilo am ñoo xam ne nañ sax xëy na mën na ko dem deux kilo cinq cent waaye almuhim euh, boo koy xool ci ay yi xaalis bopp bu nekk boo ko defee mille francs yaakaar naa ni moom dana baax bopp bu nekk mille francs boo ko génnee ndax xam nga kilo ceeb bi am na ci yoo xam ne mi ngi jar trois cent am na ñoo xam ne mi ngi jar quatre cent am na ci yoo xam ne sax mi ngi jar cinq cent am na ñoo xam ne mi ngi jar lu ko ëpp kon boo génnee. 1000 francs ku ne danga xam ne ci mën am ñaari kilo ceeb wala ñaari kilo ceeb ak lu topp kon ñu génne ko bopp bu nekk 1000 francs nga xam te tey boo amee fukki doom muy ñaari junni boo ko dee joxee bokk na ci li gën mooy bu ko joxee par 1000 1000 jëlal lenn nga jox ko génn boroom kër nga xam te ni boo jëndee sam xar mu mën a jënd ganaaram boo toggee sa tufi mën a togg tufeem lislaam noonu la bëgg ci murum koor kon mboolem jullit bu déglu jotaay yii xam la gën ci lañ koy génne ci jamono jii mooy ay koppar xaalis ku ko amul nag doo ko mën a génne ceeb wala mboq wala dugub te ceeb moo gën a siiw ci li dund ci ci ci waxtu wi loolu nag ku ku amul lu lu loola waaye ku am lenn war ko jënd ceeb jërul muy jënd ceeb ne na ko jox xaalis ne ko joxe xaalis ndax dañoo bëgg néew yu loolu yi bu bis baax ñu bañ a dem yelwaani wala bañ a la lëjël kenn ñu toog seen kër ni ñëpp toogee seen kër ndax ku ne xam na ni feet bokk nañ ca sart mooy soppi cin yonent bi farataal ko ci ñun ndax li muy li muy jariñ it mooy day seetal day sellal mboolem taq-taq yi nga xamante ni moo amoon ci koor gi ak njuumteeg yooyu yépp boo joxee muddum koor muurum koor da koy sellal seetal ko kon loolu aadama da ko ñëpp bàyyi xel xam ne ku ko mën a génne daal na ko génne ci xaalis moo gën boo ko mënul nag taam ay ganaar nga xayma loolu génne ko wala bu dee ndawal nga xayma loolu génne ko boo amul te amoo ta taam nag ah ko defee loolu moom mm, laa yukallifu llaahu nafsan illaa maa ataahaa yàlla tegul kenn lam euh, lam man wala lam ko jox kon ñooñu ñëpp dañu bàyyi xel ni yonent moo ko farataal ci jullit ñi te buñ ko génnee day waral ak set ba ca desaat bàyyi xel ni i'tilaaful mataali' moom ku ne xam na ñett la ci ñi koy jàngale ci université gën a kawe. mooy am na ci ndax jafe-jafe day judd ci demee nii ñun war nañ ci àddu xam ni léeg rek ñaari kori aadama wala ñetti kori eh, loolu it na ci ñëpp bàyyi xel am na ci loo xam ne lislam dafa cautionné jullit ñu ànd ixtilaaful matériel aadama ñett rek la mooy boo xamante ne adduna yëpp war nañoo mën a wareendoo wala warandoo ci benn bis waaye bi charte ci borom xam-xam ya bi mooy amul benn réew jullit ak morom moom mu rawee ci àdduna bi 24 heures am temps benn jullit réew jullit bu ko rawee ak morom moromam ci àdduna aadama ginnaaw nag loolu am na ñu ni mën nañoo woorandoo mën nañu woorandoo waaye bu charte borom xam-xam yi réew yooyu yëpp daje def li naa conclave def benn mémorandum ñëpp bokk signé wane ni benn pays jullit bu ko gis ci àdduna benn yeneen pays jullit yëpp. dëkk jullit yëpp war nañ cee dëgg woor ci baa wooru ci waaye loolu nag borom xam-xam yi affaire yi la wax nag waaw ñu borom xam-xam yi yi nga xamante ni xam nañ ni e, seen xam-xam du xam-xam bu gàtt dafa ñu nekk ci réew yi ñu ngi leen di déglu ngir xam-xam ñooñu réew mi nag da ci yebal ñu daje bu ñu tëjoo lu ñu lu ñu lu ñu wax ba d'accord ci xaayida charia yi ba fiq yi boobu delloo seen kaw al muslimuna inda surutihim moo jullit lu ñu xas ba tënk charte la yàlla ànd ci yent bi ko ne ko foofu la àdduna yëpp mën a bokkandoo woorandoo wala woreendoo bu loolu amul ñu ni kon par continent léegi nag mboolem 53 états yi yabal seen boroom xam-xam yi avéré yi ci ilmu sharia ilmu sharia ñi nga xam te loolu moo seen domaine ci la ñu spécialisé wu ñu daje réew yëpp yabal ña am ñu daje tëju daal di ni kat benn pays bu ko gis ci Afrique. ya yëpp nañ ca ànd worandoo wala warandoo daal di bind signé charte ba dee daal di daj dal ci kaw qaida al fiqhi ba daal ne al muslimuuna inda suruuti waaw al muslimuuna inda suruuti bu loolu amul nag am réew mel ni Sénégal quatorze régions la léegi nag ñu ni région bu ko gis te ñu ko gis ñu doyloo leen te mu leer Sénégal gépp nañ bokk worandoo wala ñu woreendoo moo gën ñenn ci ñun di déglu yeneen dëkk yoo xam ne bokkuñu ay continent wala bokkuñu ay race wala bokkuñu ay nation parce que l'islam dafa dafa fonk ak bokkoo fonk bennoo fonk nga ànd ak ña nga war a àndal moo gën nga ànd ak ña nga war a àndal ndax nit dañ niruy bokkam ba ñu niruy bokk bokki jàmb loolu lañ ko bàyyi xel xaada fiqhi boobu day daal seen kaw daal al muslimuna inda surutihim maanaam l'islam dafa cautionné bennoo dafa cautionné nekk benn te mboolem pays l'islam mboolem ci réew mi seet nañ ko nee nañu te gisuñu ko kon léegi loola la réew mi yëpp war a ànd mooy kat ginnaaw yàlla dogal na euh, réew mi gisuñu ko te xaaxide yooyu ñu wax amagul ci àdduna bi amagul ci continent bi kon mi ngi kon réew mi moo ñu war a gën a concerné kon àndandoob jullit ñi lislaam da ko cautionné benn jullit lislaam da ko cautionné waaye tasaarub jullit ñi képp ku ko mën a sooke na nga jàpp na def du jaamu yàlla te it du xam-xam du xam-xam ndax bëri na ci ñoo xam te ñu ngi diriger yenn mbooloo yi te la ñu war a xam ci charia xamuñu ko fa ñu war a aw aw ñu fa te charia lépp ay texte la ay charte la yu leer aadama wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu